jërë ngeen jëf ci ànd bi ak seen bi di APS TV ñu dem ba foofee ca ndar ci diggante ñaari nappkat yi nga xam ne kenn ki ci wuyoo ci turu A Ndiaye kenn ki ci wuyoo ci turu A Meng ki di A Ndiaye nag moo daal di rey kii di A Meng ñoom nag li ñu jote ginnaaw bi nga xam ne dem nañ ca géej ga doon napp lii di ay jën dañoo daal di am foofu nag ay wax yu sew maanaam ay quelques problèmes lañ fa daal di am ba kii di I Ndiaye bi nga xam ne moo nekkoon capitaine gaal gi daal di weq kii di A Meng ba fa jaaree nag daal di ñàkk Waar amee foofee ca Saint-Louis lépp lu ci tukkeewaat ci xibaar daan nañ ko dëgtal fii ci AVS TV ñu jàll wax ci leneen ci ndigal li nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké Bassir daal na koy joxe ngir soññ ñi nga xam ne ñooy suñu mbokki baykat ngir ñu daal di dem waajal nawet bi mu ci ñaan def ay ñaan yu am solo nag ngir yàlla defal ñu ko mu nekk nawet bu nangu ak uh, am ci xéewal bu saawaan baawaan di ndigal li nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké joxe na ko ngir ñu dem waajal nawet bi mbokk yi safoo suivre seen bi di ñu leen di wax ngeen woy di abonné tey activé cloche notification bi jërë ngeen